te gars ma xool ma image bi Lac de Guiers Balla Gaye 2 ak ki nga xam ne moo di Eumeu Sène xool ma leen xool ma leen ñoo ngi nii Lac de Guiers Balla Gaye 2 ak ki xam ne moo di Eumeu Sène xool ma xool image bi xool ma image bi Lac de Guiers Balla Gaye ak ki nga moo di Eumeu fii fii si Abidjan acca mi ngi nii fii si Abidjan mi ngi nii mi ngi nii acca xool ma gars yi xool oh, image bi rafet bi xool bi Balla Gaye ngi noonu ah, ak ki moo di Lac de Guiers 2 xooluma image bu rafet bi macha allah macha allah nee naa leen ah lamba ngi nii ah lamb ni ñoo bokk ndey bokk baay ah gis ngeen ah, Sénégal lañ jógee ñëw fi nga xamante ne moo di MMA si Côte d'Ivoire ak li nga xam ne moo di signature bi Lac de Guiers nag moo war a dajal ak ki nga xamante ne nii ah, moom moo di Ada Fass Ada Fass a fi euh, euh, depuis mardi depuis léegi de Fass mi ngi fi depuis mardi ba léegi gis ngeen nag da ngeen mi ngi soog a ñëw Eumeu Sène euh, mi ngi noonu ah The King Eumeu The King mi ngi noonu Balla Gaye mi ngi ne aussi si biir gis ngeen gars yi champion champion yaay yi di soog a ñëw fi nga xamante ne ni moom moo di moom moo di euh, Abidjan pour signature beeg MMA beeg lépp. waaye eh, mi ngi noonu ah mi ngi noonu Aliou Seye aussi mi ngi nii Aliou Seye 2 si na mi ngi nii moom tamit euh, di soog a ñëw fi nga xam ne moom moo di Abidjan Aliou Seye 2 mi ngi nii xoolal ma xoolal doomu géejawaay bi mu ngi nii Aliou Seye 2 l'arrivée de Aliou Seye avec Buzz Aliou Seye 2 mi ngi noonu Aliou nii Aliou mi ngi nii ah aussi. <laughs> Mathieu Pereira a ngi noonu Mathieu Mathieu a ngi noonu naa ko Mathieu a ngi noonu Mathieu Mathieu a ngi noonu Aliou la champion yi ziar nañ la gaay mbaa yaa ngi si jàmm yoon bi ba sonnoo rek ah daal jaama ah. jaajëf waay ak Eumeu a ngi noonu ah Mathia ngi noonu Mathia a ngi noonu Aliou Seydou mi ngi noonu ak gaay gis ngeen ah en direct fii naa la gaay waaw yaa ngi si jàmm yoon bi waaw dóor mi daanu rek ah mais ni waaw loolu lañ bëgg de ah. soutenir gars yi ñu jël ndam li yóbbu ah, ah. waaw parce que moom gars yi moom xam nga liggéey nañ ko te mérité nañ ko mais yéen dañoo war a ñëw jël li fi moom yóbbu waaw muy Potiloo muy Albouri muy Serigne Ndiaye muy Ada Fass Ndiaye muy Lirou Diagne ñu ngi ñëw soutenir leen pour ñu li dem parce que loolu lañ mérité quoi te la ngay wax sénégalais yi nga xam ne nekk ak sénégalais yi nga xam ne ñoo a Sénégal aussi waaw wax ne affaire yi sport la rek foo ak ree la parce que gis na tey lii ama seen booy ñaar Balla Gaye la dëggeer xam nga bokk ndey bokk baay añandoo lekkandoo naanandoo kon loolu sant la quoi ku lay wala kon c'est sport kon lépp si sport la xaj sport tey moo waral tey ñu ñëw ba fii bokk ndey bokk baay kon sport daal c'est sport daal. acca ma ca teel foofu sa bopp. waaw ak Malaw danaa la Balla ak Malaw gaay acca mi ngi noonu